de la bonne musique, du fun et surtout du PEPS. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois sur l'esplanade du Sea Plaza avec Abiba. Abiba, l'artiste Abiba, Abiba boo xam ne a chaque fois bu ko gisee muy bëggal xale yi loolu moo tax ak chaque année euh, muy def lii di arbre de Noël boo xam ne xale yi la koy jagleel Abiba. fête de Noël moom lañ ko dippee sax à chaque fois euh, tey nag moo woote fii mag ndaw xale ñëpp ñëw waa Wassare TV TV duñ fa des surtout euh, waa lii di Univers Info ak waa Dakar Midi la Wassare TV c'est toujours qui est en train de camper le décor euh, mille vies moo biir partout au Sénégal et lui-même à travers le monde tey nag lu gën a exceptionnel maanaam si concert bi mooy lépp loo xam ne gagné na nga fi mooy maanaam recette yi lañ koy joxaat lii di benn association des des enfants mu doon loo xam ne lu exceptionnel mu doon loo xam ne maanaam artiste bu ne bu fekkoon moo koy def benn xale dootul nekk si mbedd yi waaye ti sedd bi comme ni ñu ko tollee nii benn sedd du sonanti benn xale mu doon loo xam ne exceptionnel waaye comme ni koy waxee leneen di bàyyi ngeen dund ambiance son et lumière avec Abiba l'artiste artiste Abiba, elle est exceptionnelle. Rendez-vous tout de suite, c'est une belle affaire. teewaay fi lu waroon tey sa teewaay. bokk d'organisation en même de la communication Abiba Music donc voilà ñëw soutenir suñu artiste donc ñu gis Abiba maanaam lépp loo xam ne am nekk loo ne nii ñu ngi koy rafetlu aussi donc euh, di ci sant yàlla di ñaan yàlla que mu kawe suñu jox incha allah. merci beaucoup non may ma ko rek dégg nga may ma ko may naa la ko. noo concert Abiba bi tey. ah neex na trop en plus dañ kaa namoon dañ kaa namoon trop neex na ñoo foo ñoo kaf. noo gisee hommage bi muy daan kii di Thione Seck. dégg bi muy daan Thione Seck. waaw loolu moom la rafet la parce que Thione te Thione Seck suñu papa la et c'est normal aussi li mu def rafet na trop rafetloo nañ ko. merci beaucoup. merci. waa Seck ñoom taxaw ak kii Doudou Doudou ñoo ngi lay nuyu. may naa la naka la yaa ngi am jàmm. waaw dama waroon a teewaay fii. ah ñëw rek soutenir suñu sœur Abiba moom sama sœur la quoi. waaw loolu moo fi andi ñëw soutenir ko seetaan si comme ça comme fan. doo gisee rendre bu muy rendre hommage kii Papa Thione Seck. waaw macha allah macha allah parce que Thione Seck monument la musique sénégalaise donc euh, ku ku ko rendre hommage def nga lu rafet quoi def nga loo xam ne sa wàlleef wareef. waaw sa wareef quoi. <laughs> ñu gis ne ñu gis ne maanaam recette yu mën a am fii yëpp lool. ah ça c'est extraordinaire ah loolu lay def xam nga woon loolu macha allah loolu moom ah. ku defal nit moom nga jàppal ni sa bopp nga defal waaw te loolu la bu tuuti fan la toll projet projet yi ñu ngi ñëw dama doon pause rek bàyyi gars yi nooyi tuuti jël di. mu doon man waaye waaw. ñu bëri ñuy xaar eh, tuuti grand ñëw année bi incha allah incha yàlla jàppee moom 2022 Doudou Show 3 dina am. la wax waa Wassare. ak waa Univers Info ak Dakar Midi. waaw maa leen di bëggee bi di leen ñaanal xoolal bonne continuité waaw di wax gars yi koy seetaan di ko koñ parce que affaire yi fii lay xewee ah comme ni nga koy gisee Bassa bi Noël la xale yi ñoo ko moom giseen xale yi ku nekk euh, ñoo ngi toog di foo seen biir waaye tamit comme ni ko waxee sànq euh, lépp loo xam ne rek xale yi dinañ ko mooy doon ay cadeau euh, dañ leen koy jox giseen xale yi ñoom ñëpp ñoo ngi toogoo ñoom xoolal xoolal kii xoolal kii noo tudd. Yaaya. Yaay comment comment koo àndal. kii mooy sama maman. Ah. nu mu tudd moom. pharmacien. pharmacien noo gisee Abiba. noo gisee concert Abiba organisé. ah neex na. yaa ngi fecc. waaw ban son Abiba nga xam kaay taxawee nii. Ah. ban son Abiba nga xam. benn. xamoo si benn. te noo tudd yow. Sali. Sali koo àndal. Sali Faye. Sali Faye koo àndal tey sa yaay woo sa papa. Oh, yaay sama papa sama mag ak sama ak sama tata samay cousine ak sama ah, tonton. ak sa tonton waaw xaaral après ma àll léegi pour ma àll ban cadeau gën a bëgg ban cadeau gën bëgg si nawet. cadeau waaw. man poupée. poupée yow. man tablette. tablette yow looy dee tablette. eh man laa bëgg. téléphone. waaw yow looy dee téléphone. man poupée bu ñuy. ma smartphone ma smartphone. man man nunus après boobu gis nga Bas xale yooyu ñoom ñëpp waaye tamit ñoo ngi ànd kii di seen yaay solos mi ngi <laughs> non yi rek laa gunge si. <laughs> mais tur Fatma Fatma. Fatma lan moo waroon tey yi ñëw fii si non juste que elles sont en vacances donc euh, c' était comme Abiba woote xale yi ñëw wuyu ko. te franchement xale yi bëgg nañ ay wayam te vraiment on l'aime beaucoup. ñu gis ne xale yi kii moom ñaan tablette la bëgg kii naan téléphone da ngay da leen jënd cadeau. kii a ah, bon est-ce du ay poupée moo merci beaucoup merci. parce que comme ni ñu ko waxee ah ñoo ngi xale yëpp euh, ñoo ngi nekk fii dañoo ñoo ngi jënd seen ay lekk lekk bu neex ay gato am na waaye bas moom moom topp xale yi ba lekk seen lekk yi comme ni ñu ngi fii di fecc am na ay jeunes yoo xam ne tamit ñoo ngi fii di fecc mais pro xale ma toog nii xale ma toog nii toog nii xale ma toog nii tur bi naka la. tur bi tur bi duuru Diouf man suñu si Diallo. tey jii noo gisee Ayou Ba bi. ah neex na de. waaw ah. ah. fan Ayou Ba nga mën. man ay ma de. te amoo koro koro koro newel. ah. ndax ah. xamoo de. xamoo ko après dama la wutale koro newel. ana kaay bi kaay man na yow noo tudd waa. <laughs> waaw yaa ngi lekk ay foofu ma si nii léegi noonu noo tudd. man maa tudd Aliou Balde. Aliou Balde koo ànd sa papa wala sa yaay. man. Diallo. Diallo. waaye sa ànd sa gel booy. waaw moom moom moo ngi ne sax. moom pe. affaire nga woon ni ko sa gel ah, ay gel. waaye eh, Habib Ba ma gisee ah. eh, si kàddu <laughs> tudd yow. Mouhamed Lamine sa coach waaw. ah bu baax. bu ma sa yóbbu préféré. man Rakitic. Rakitic. nekkoon. Barça. Barça dara booy. waaw daa demaat Sim bi boo tax. Ah. est-ce que am nga am nga karo wala am nga karo. ah amaguma amaguma. ban karo nga bëgg. man iPhone laa bëgg iPhone. iPhone mooy xale bu ndaw lu ne iPhone. ah du ay iPhone. booy nu ngay football. waaw. booy ban ban tànk la ñuy kajee bal. ah ban tànk la ñuy kajee bal. turaat turaat turaat. turaat kese. booy xamul football de. ban poste ngay football. ah ban poste ngay football. milieu terrain. milieu terrain. kan mooy sa joueur préféré. ah kan mooy sa joueur préféré. Jojo koo tey sa papa Seck ah baax ay sa nga àndalee tamit. Ah. Eh, ban kado nga gën a bëgg. man. waaw kado si kado yëpp. kado yëpp merci jërëjëf. Ah, loo loo fii te doo ñu indi ba la de. Ah,